xam ne ñoom laa bokkaloon liggéey bi fii ci ministère bi madame le ministre gannaaw ba ñu defee passation bi ci bureau bi inspecteur général d'État teewee ko ñu joxante lenge yi nee naa la fii ci ministère bi lépp loo xam ne waxal nañ ñu ko moo xam léegi la walla buñ fi jógee na nga xam ne bokk naa kook équipe bi nekk ci ministère bi bu ñu nee secteur bi am na ay avancé xamal ne agent yi fi nekk personnel bi fi nekk ñëw ko liggéey nekk nañ ñoo xam ne au-delà de leur sacerdoce ak de la posture républicain bu ñu am dañu jël seen doole bopp seen yéwénu bopp def ko ci liggéey bi ndax Diamniadio bokk nañ ci premier ministère yi fi ñëw mu nekkoon lu metti lool dem bi dikk bi xaw a jafe ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lépp ñoom dañ ko gàddu ngir république bi ngir jàppale président ma Sall ci liggéey bi nga xam ne askan wi dénk nañ ko ko kon maa ngi lay dénk sama njaboot ndax mën naa jàpp ne li woon ci ministère bi yëpp amul lenn lu ma fi moom day mel ni mbubb rek booy dem nga simmi teg mais lenn rek laa xam ne maa ngi ko fi bàyyi te maa ko moom mooy équipe bi kon maa ngi la koy dénk ndax équipe bu am solo la euh, nga jàppale ñoom nag duma leen wax jàppale leen madame le ministre parce que xam naa ni dinañ ko def ndax euh, ku gis taxawaay bi ñu am ci liggéey bi xam ne euh, ni ñu taxawee woon démb ak bër ki démb dinañ taxawee nu ko raw maa ngi ñaan aussi équipe bi nga xam ne ñooy ànd ak yow ñu gën a mën a jàppalanteeg ñi fi ne ndax euh, ñu bari ci ñoom xam naa leen xam naa aussi seen dëggu ak seen taxawaay. ginnaaw bi ñu euh, sante yàlla mi ñu may tey ñu fekkee ko toog fii di def passation de service bi euh, may gërëm président de la république son excellence Macky mi. ma teg fii ma nekk nii tey mm-hmm. mu nekk euh, sas mu nekk sas bu rëy euh, sas ci confiance ci kóolute waaye it sas ci secteur ndax ku xam secteur u microfinance ak économie solidaire économie sociale et solidaire xam ni dafa nekk benn pilier bu fondamental pour ñu mën a adresser problématique wu moo xam emploi moo xam jàppale jënd ak jaay moo xam aussi structuré euh, accompagnement bi ñu war a defaral pour des couches pour une cible bi nga xamante ne dafa soxal lool lool lool son excellence le président de la république bu ñu xoolee euh, orientation yi mu joxe yëpp et ak nu mu ko inscrire sax ci PSE ba ne euh, économie solidaire daf ci am solo waaye it may gërëm Euh, sama naataango ak xarit euh, ministre Zahra Iyane Thiam Diop <laughs> nga de euh, ma koy gërëm te gi ko mën a seede fii ci kanamu ay collaborateuram wax naa ko sànq ci cérémonie de passation bi nee naa leen bu ma xoolee ca na mu doon taxawee conseil des ministre taxaw tem di defendre secteur am njort naa ni bu ma jëlee ay tànkam gëm naa ni baax baax rek lañ ciy gis. te mu ne ma mu dalal ci sama xel ne ma ñi ngi fiy fekk ay liggéeykat lañ ñi ngi fiy fekk bëgg nañ seen liggéey am nañ ci pas-pas kon foog naa ni fi mu toll nii euh, yaakaar gi ñu am sas gi ñu sas. te fast track biñ ci war a boole euh, yaakaar naa ni tiit xaju fi ragal xaju fi ndax compétence yaa ngi fi engagement baa ngi fi te euh, may wax rek ni la ngeen ci soxla ci teewaay ak taxawaay ak engagement ak portage soobe yàlla di ngeen ko am ci man di ngeen ko am ci équipe bi may ñëwal te it dinañ ko am ndax ñun ñëpp bu ñu bokkee nekk benn say di xàccandoo di dóorandoo gëm naa ni résultat yi ñu bëgg dinañ ko am bu soobee yàlla ma ci ngërëm bi it may gërëm euh, mbokk yi fi teewe di gërëm xarit yi fi ne di gërëm it sama ay collaborateur famille ba ma jógee ndax yaa 22 mois ci laa dugg ci gouvernement bi nekkoon ci ministère de l'urbanisme ñu fekk fa jàmm ju bari ñu liggéeyandoo ci jàmm xëy na it moo tax it ñuy fod fellale coloré maa ngi leen ci sant leen ci gërëm gis naa délégation bu rëy bi ngeen def ñëw fii teewee gunge ma euh, ma kontaan ci lool kontaan it ci délégation bi jógee ñagis bi jógee ñagis ndax ñagis moom sama ñagis la ma kontaan démb dañ ne kenn du leen fi jiitu li mu xat xat xat démb ñëw na ñu def seen délégation egsi fii ma leen ci sant di leen ci gërëm euh, te di leen wax it euh, yóbbante gi ñu ma yóbbante si son excellence le président de la république dana yegg bu soobee yàlla ndax gis naa ni keroog da ngeen fanaane jàmbadon te bu ñu delloo gën ko tàmbali gën a continuer jàmbadon bi euh, ñuy wax rek ni rigueur ci liggéey kenn du ko jàngal kenn donc bu ñu paree ci cérémonie bi waxtaan ree ah yaakaar naa ni yi fi tàmbale na tey te euh, waaw ibi tey nuñ ko tudd du xeex tey de ibi tey liggéey tey rek xeex vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. Non,